asalaamualeykum sama mbokki Touba ah balaa may def dara ma sant aussi ah, sama bàjjan ki ne cuun yàlla la yàlla may wër may la gudd fan may sant Serigne Touba di wax jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba tey mbokk yi seen doom seen mag seen rak seen jarbaat moo ñëw ci dëkkam pour seet si ay mbokk li ñuy ñaan mooy yàlla defal fa majorité ba lépp lu ñu mbébétoon bëggoon ko def fii ci dëkk bii di Touba ak Mbacké yàlla def ñu mun motal ndax umbalewu leen ne boobu ba léegi ñoo ngi jéem lépp lu ñu mën ci Touba saay suñ ñu soxlaa ñu bàyyi sunu yite yépp bàyyi sunu aajo jël lépp lu ñu am ñëw indi ko ci dëkk bi bokk koog ñoom lépp lu ñu soxla ñu taxaw ci segam nag buñ bu ñu yoree sunu yëfi bopp la ñuy sàkkantumaag bu ñu yoree ay yëfi nguur pour doxal yëfi nguur ma leen di wax ne man seen doom Abdoulaye Sylla fii la soqe ko fii la bàyye ko te it man ak yéen xale yi fi nekk ñoo yemoon fii laa doon daan sama doole ci gaar bu ndaw jàng waane ma jël sama diplôme teg fale ne man businessman laa bëgg doon homme d'affaires laa bëgg a doon multimilliardaire laa bëgg a te boobu wér na yàlla ne lu ma dix mille francs sax nekkul ko poos man ak Amir dii nekkoon ci marché bi ñoo yem dañuy xëy suba di dugg occas di tey ñu mën li ñu mën ma leen di xamal ne bëgg di ngeen ko am ndax man foofu laa jaar jaar-jaar boobu nag laa bëgg tey xàllal ko sama rakk yi teggil leen coono yi ba nga xamante ne ñoom bu ñu ñëwee li ma defoon ci juróomi at ñoom ci ñaari at rek lañ koy def ma leen di xamal ne bu dee emploi xam naa nuñ koy créer ndax gisuma ci Sénégal entreprise sénégalaise buy employé li may employé ci ay nit mais li ma gëm emploi nit moo koy jox boppam soxlawul ngeen di dem fenn di wuti emploi gëm leen seen bopp ngeen taxawal seen liggéeyu bopp ñu jàppale leen ci ngeen am li ngeen bëgg loolu lañ gëm loolu la ñuy woote waaye loolu balaa muy mën a am il faut liggéey bi ñu li mu soxla muy alal ñu jël alal jooju mettre ko à la disposition de la jeunesse mu agsi ci ndaw yi agsi ci jigéen ñi ndaxte nag sunu yaay yi sunu sœur yi sonn nañ bés bu set ñu ngi wër di dem ci mutuelle yi di dem ci kalabaas yi di wut xaalis pour toppatoo seeni njaboot pour liggéey am dara joxe dépense yore seeni njaboot loolu nag dañu fas yéene comme ñun xam nañ yoon wi suñu yàlla joxe ñu am majorité sa assemblée nationale ñu teggil leen coono boobu taux bi nga xamante ne moom lañ doon lebee ñu fexe ba wàññi ko ba nga xamante ne financement yi am accès di mën a jëriñu di ci mën a liggéey jëriñ ci seen njaboot jëriñ ci seen askan. xam nañ ni ñuy ni ñuy defee assainissement nañ ni ñuy defee ay tali yu mucc ayib xam nañ ni ñuy defee éclairage. xam nañ li Touba ak Mbacke soxla ndax fi lañ juddoo yaroo fi xam li dëkk bi xam li dëkk bi soxla te bu soobee yàlla bu ñu demee assemblée nationale suñu priorité Touba lay nekk ak Mbacke.